sigel to madru youtube nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy ka farje ki mustafa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ya yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha asalaamaaleykum wa warahmatullah soxna si ñing lay nuyu di nuyu mboolem ñi tewlu jotaay bi lepp ci réseaux sociaux yi ak fuñu mëna fédé ci bir réew mi ak bitim réew ñu ngi ziar ñëpp. waaw bis bi e, ñu ngi ko waajal kem ni ko doon waajal rek at mu jot mooy bu bis bi jegesee commission yi dinañ daje kenn ku ci nekk wàll wi la yàlla dogal ñu e, féetali la fa nga war faa liggéey ci màggal gi. ñu saytu ko waxtaan ci tàmbalee ko ca màggalu daaw ga li ci jaaroon ci yoon ñu fexe ba loolu nan lañ koy maintenir gën koo avancé du ñàkkit ay benn benn ñu ci seetlu yoo xam ne xëy na ay njumte la. yooyu itam ñu fexe ba mu bañ a baamu. bu ko defee nag ci commission bi ñu feetam tamit commission culturelle bi eh, yàlla dogal ñu mu tënku rek ci ñetti sous commission yoo xam ne moom moo ëpp solo ci liggéey bi benn sous commission bi doon sous commission Drouss nga xam ne ñoom lu aju ci njàng mi ci màggal gi ci alquran ji yi ak azkar yi lépp ñoom ñoo koy saytu tàmbalee ko ci subag màggal gi bu ñu xëyee eh, ñu ngi boo demee tey ji biir bayt rek ci kër bi da nga leen la ñuy nekk bu demee ba ngoon jot ñu toxal jataay ba yóbbu ko ci baasu wilaaya bi ca penku ba foofu la ñuy continuer drus bi alxuraan ak xasaayit ak lépp lu baax ci njàng ba fajar jot loolu mooy sous commission drus bi beneen sous commission bi recherche ak documentation te mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo saytu wàllum euh, xam bi ci di soññee di fàttali cosaanu màggal gi waaye itam li jëm ci exposé bi euh, ñu di ko saytu di ko gaaral ngir nit ñi mën cee jële ay bind gën cee jariñu waaye itam gën a fàttaliwaat it bis bi maanaam cosaan la ak it importance bi mu am ndax njariñ la lu bari moo ci nekk loo loo xam ni képp ku ko xam dañ ci jëriñu si. waaw loolu tamit commission bi nga sous commission bi nga xam ne ñuy wax recherche ak documentation ñoom ñoo féete woon loolu waxtu ci nekk eh, ñooy bay seen waar ci ci ci côté boobu fii ngeen ñëw nii tey muy exposé bi ñoom ñoo fi liggéeyee. mu des beneen sous commission muy sous commission sous animation mooy ñi nga xam ne ñoom yor wàllum animation bi ci bis bi jëm ci njàngum xasaayit mi ci diggante kuréel yi ak rajaskat yi loolu ñoom it eh, loolu mooy seen wàll ci bis bi laata bis bi di ñëw lañ ko doon tàmbali di piloté kur eh, wër mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo aju ci section bi kenn ku ci nekk ñu dem xool programme am ak wàccaayam fan la toll ngir lépp rek mën a maase tege ci yoon ba bu ñu ñëwee ci bis bi kenn ku ci nekk ñu doon yaakaar ci yow doon ko séntu ci yow ci programme boo xam da ko war a jàng ci màggal gi nga nga nga jàng ko kazalika yeneen jàngkati xasida yi nga xam ne tamit bokkuñu ci mbooloo mi waaye xam nañ leen ñuy ci xasida ci njàngin wu jaar yoon tamit am na ci ñoo xam ne danañ dem ci ñoom wax ak ñoom ngir jox leen ay heure ci bis bi eh, bu ñu ñëwee eh, ci màggal gi bu seen heure jotee ñu ñëw yëkkati xasida comme niñ ko daan defee at mu jot loolu daal ci tënk mooy programme mooy programme commission culturelle bi jërëjëf sëñ bi leeral yooyu am na solo wante bi ngeen ko waajee ba yegg si fii bi waaw bis bi niñ loolu loolu ma la waxoon rek mooy eh, dundal ko ci jàng alquran ak xasaayit zikar salaatu ala nabi waaye itam fàttali cosaanul màggal gi ak it ki nga xam ni moom la yàlla dogal ren eh, ñu jëmale exposé bi ci ñëw ci moom muy Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin ab taxawaayam relation ak njabootu Serigne Touba gi rawatina taxawaay bi mu amoon ginnaaw Cheikhul Khadim ci jàppale Cheikh Mouhamadoul Moustapha yooyu itam waxtu ci nekk eh, ñu di ko fàttali ngir bokki taalibe jël ci ay bind mën cee mën cee jëriñu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 jërëjëf sëñ Moussa Ba ginnaaw ba nga nuyoo ñu lay laaj màggal gi nan ngeen ko préparé. waaw jërëjëf soxna si mu mel ne dinañ am mbégte ak contentement bu baax ci laaj bu am solo boo xam ne laaj nga ko màggal gi nag niñ ko waajalee commission sociale bu nationale taxawaay bi mu ci waajal euh, dafa nekk taxawaay bu am solo boo xamante ni ngir waajal bëgg rek màggal gi lépp jàkk moo tax mu separe ko ci ñetti commission sous commission bi ci njëkk développement économique beneen bi di santé beneen bi di bernde. ci ñi mu séddalikoo nag tey fi ngeen taxaw nii mooy développement économique euh, liñ ci jiital nag ci commencement bi mooy doon ñooñu fexe def le tout pour dajale li nga xam ne mooy corps de métier am ci mbooleem section yi ngir ñu dajale leen xam ni ñu toll ñu def benn exposition ngir màggal ci exposition yi exposition yooyu nag euh, section yu bëree bëri participer nañ ci indi nañ ci tamit mooy li ngeen gis sànq ay matériels yoo xam ne wuute nañ te yooyu yëpp ci section yi la jógee muy section yi wuutee wuutee la jóge fekkee ma ñoo xam ñoo leen wax euh, lu toll ci juróomi section wala juróom-benn section ñoom ñoo fi indi ci exposition yi bi ci jiitu muy Touba def na ci exposition bu am solo Louga euh, Kaolack euh, Thiès Dakar ak Taïf yooyu ñoo fi indi ci exposition yi ñi nga xam ne moom ngeen jot a gis nii ci matériel man la Mbaye Ndiaye responsable commission santé bu secrétariat jeune. su dee màggal gi nag Serigne Khadim moom laa si topp mooy adjoint sama adjoint mooy sama adjoint am si responsable santé bi mu dénk ma ko it liggéey bi yëpp sunu liggéey nag ñun su commission santé tàmbali na depuis waa base tàmbali depuis waa base tàmbali ba léegi ñu ngi fi chaque chaque jour ñu fi indi benn élément ngir mu couvriral ñu maladies fi am yi nga xam ne mën nañ koo téye yi mu téye ñu référé leen au niveau di centre santé. yàlla dogal na nag boobu ba léegi yaakaar naa ñaari cas rek lañ fi amagum yoo xam ne wala ñett yu ñu supérieur ba ñu référé leen benn bi bokkoon si Louga waa Louga la mu doonoon seen benn membre base bu ñu fi indi woon yàlla dogal ñu référé woon ko centre santé bi beneen bi Touba yaakaar na moom yàlla dafa tànk moo loxo bi moo demoon yow moom it yóbbu nañ ko def nañ sa lan war a def ba faj nañ ko daal. kenn ki tey la woon mooy benn xale la woon boobu dëkk Taïf yàlla dogal saret laaloon ko moom it mi ngi instant yi mi ngi jànnatu ak suñ benn élément boo xam ne sous commission bi la génne euh, di élément santé te it ñi fi nekk yëpp it duñ n'importe kii la ñuy dugal ci santé bi ñi nga xam ne ñi fi nekk ay agent de santé lan ñoo xam ne xam nañ si garab dara ak a faj ak lii ñoo fi nekk di couvrir ñi ngi si garab yaa ngi fi depuis lors liñ fi ëpp liñ fi am nag. moo di ay bopp yu metti ay blessure ay biir metti ak i ndaw ndawaan feebar ndaw ndawaan yoo xam ne fi am amagum amaguñ fi kenn koo xam ne it ku sibru la wala ku nangam amaguñ ko fi waaye nag wax dëgg yàlla liggéey bi mi ngi dox xale yi ñi ngi koy def ni ko ni mu waree euh, donte ñun amuñu temps ngir toog benn place waaye ñoom ñi ngi koy def lépp loo xam ne gis nañ ko te mu xawle ne sut te mu tolloog jub ñoo ñu koy jox ñu koy ñu koy def. sous commission bi dafa am dafa doon sous commission bi essentiel si mbooloo mi mënut a ñàkk si doomu aadama di xamal Sénégal yi mbooloo mi yëpp ñu gën koo jox gëddam ndax euh, waruñoo toll foo xam ne mbooloo waru toll foo xam ne dañ naan section yi indi leen ay dotation dañoo war di am dotation garab boo xam ne day doy sëkk nga xam ne day am doy sëkk ñu mën koo liggéey liggéeyin boo xam ne nii doo ku fi ñëwit sa aajo dafa jo paracétamol boo xam ne ñetti dooma see des wala leen nit am na loxo lu ko gën dem am garab yu doy ngir ñu jox ñu mën a amee garab yu doy ak matériel bu doy ngir ñu mën a am couverture bu doy daal loolu daal laa sam di leen nag waa communication bu baax si liggéey bi euh, coono yi bëri na trop waaye nag ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm. di leen siyaar di leen jaajëfal it raw na su comme soo bii nga xam si moo ñëw di def si liggéey bi dina ñaan yàlla suñu borom doole jàppale si seen liggéey. waajtaayu màggal de niñ ko baaxoo defee rek ci màggal gu nekk comme ça social bi am benn su comme ça berne boo xam si da ngay def ngir jàppale comme ça sensio ci wàllu berne ci xeet yu yaatu yi ci ngeen fekk ñu koy defar ngir waajal ko guddi ngir nit ñi nga xam si ñoo nekk ci bis bi li borom bëggoon ci bis bi lépp ñu def sun kamt lay katan fexe ba defal ni berne xeeti berne yu yaatu te taw feexe lool ci nga ñu fekk ñu waajal bokk na si xeetu beñ beñ bi ñu defar ngir waajal ko waaye am yeneen xeeti berne ñu waajal tamit ngir def li nga xam si ne mooy tàngal kafe di ko jox nit ñi ci guddi yi wante di def meew tamit di ko jox jànkat yi kurékat yi waaye di taxaw nit ñi tamit ci ataay yi nga xam si xëy na nit ñi danañ ko yittewoo lool moom it sa guddi gi ñu koy baaxoo di ko taxawee noonu ñeenti xeer xeeti benn yooyu ba yi nga xam si moom leen taxawoo ren ji ngir ànd kook mboolum ñi nga xam si ñoo màgg ci bis bi. ñun Abdou Ba lañ tudd dëkk section Taïf nekk responsable organisation section Taïf. Euh, ñëwoon teew fii ci waañ wi nag yàlla dogal ñu jiite ko ànd ko ak euh, Thierno Sarr bi dëkk Touba nii euh, mu doon doxal fan yi nga xam ne moo jiitu moo jiitu liggéey bi moo jiitu màggal gi yëpp ñuy ñëw di coordonné ak moom rek ba ba ba egsi ci biñ ne ginnaaw suba lañ ñëw doog a doog a jublu ci li nga xam ne moom mooy mooy mooy liggéey bu mag bi waaw loolu daal mooy li nga xam ne. mom lañ defagul mu melne section yépp itam teew nañ fi yabal sen ñi nga xam mom lañ leen lajoon ci ay nit ñu dajé fi euh dembu def añ bi def reer bi euh, tay itam ñu xëyaat nekkat ci nekkat ci liggéey bi mu nekk nak liggéey bo xam ne bu tar la ndax kenn ku ne xamna né xéewal yi xéewal yi wacc fanané wacc mom motax euh, liggéey bi dafa dafa tar dafa tar lool wax dëgg yàlla ci journée bi Euh, waaye teewut lépp li ñu waroon a def rek ñi ngi ci ñi ngi ci te dara manqué wut waaw ñu ngi koy def bu baax a baax a baax. nii ñi ngi ñi ngi taal di toll ci trois cent trois cent kilos maanaam toll ci fukki mbana ak juróom moom lañ moom moom lañ def fi mu ne nii nii ci añ bi. aw sant rek sant gërëm euh, section yi nga xam ne teew nañ fi yëpp lu mel ne Louga ak Taïf euh, Kaolack. ak Touba gi ñu nekk ak yeneen section yi yëpp gu ci nekk liñ ko laajoon li mu waxoon ne dana ko indi ci ay nit andi na ko am na ci yoo xam ne sax indi ëpp na ko te su fekkoon indi wuñ lu ko pour kon tey dina am jafe-jafe ndax bi taw bi démarré rek dafa indi ay coppite yu bëree bëri ci li nga xam ne moom mooy moom mooy liggéey bi waaw ñuy sant bu baax di gërëm rek di di di di yokk gëm li ñu nekk waaw loolu daal moom lañ def fii ci wàññi moom